laqin lisaani waxlulan minhu loqad wajaalhu zakiran wa shakiran abad wajaal kalaami rashidan wa murshida wa arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñi ngi leen di ziyaara te di leen jaajëfal bëgg dikkaat ak yeen rek comme ni ñu ko baaxoo ànde ci ay bis bu jot di fàttalente ci mbindum sëriñ bi radiyallahu bu te suñu bind bi mujj ñu taxawoon ci bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi doon leerale bàkkaar yu màgg yi nga xam ne ab xol mooy li nga xam ne moom moo koy def wax ñi nañu ko war a moytandikoo ci bunt boobu ci lañu tolloon suñu bindu bi mujj tey nag bunt bi ñuy tàbbi sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko jagleel ñaari loxo ak euh, moytandiku gi nga xam ne moom lañ ko mara moytandiku ci di ci jëflu araam waaye moytandiku giñ ko wara a moytandikoo bala mu ñoo yóbbe ci ay njuumte wala ay bàkkaar kon buntub ñaareel bi muy buntub bi ñu bëgg a jàng tey ci loolu la jëm muy ni nga xam ne noonu lañu ñu war a moytandikoo ay loxo di ci jottalante lépp loo xam ne mooy waral euh, jullit bi di ame ay bàkkaar wala mu mën a yóbbee jullit bi sax ci alkande mooy faslun lii ab bunt la fil yadayni ci ñaari loxo bunt bi sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi ko tënke ñaari loxo nga xam ne ñaari loxo li nga xam ne moo ci aju rek moom lay wax ci euh, biir bunt bi mu ne faj tanib na teet nanga nga moytandiku yaa muridu yow taalibe bi bil ya day ni ci sa ñaari loxo tanaawulan yootu takunu lool dana nekk bihi ca moom musniban bakkaar sëriñ bi radiyallahu anhu nee na yow taalibe bi na nga moytandiku di jël say loxo di ca jottali koo loo xam ne daf lay mën a yóbbe bàkkaar na nga moytandiku di yóotu ci sa ñaari loxo lépp loo xam ne mën na laa yóbbe bàkkaar wala lépp loo xam ne mën na laa yóbbe alkande sëriñ bi nee na na nga moytandiku loolee eh, na nga moytandiku sa ñaari loxo jëm ca loolee kon bu fekkee ne digal na la loola la lay digal tere na la loola la mu lay digal mooy lépp loo xam ne mooy andi mooy andil sa ñaari loxo aw yiw ak lépp loo xam ne moo mën a jural sa ñaari loxo euh, payuk suñu borom subhanahu wa taala kon loolee moom la la sëriñ bi euh, digal moo tax kon mu ne na nga teet lépp loo xam ne rek mën naa yóbbe sa loxo ci ay bàkkaar lépp loo xam ne mën na laa jural ay bàkkaar te bàyyi ko ci sa loxo sëriñ bi radiyallahu anhu nee na loolee na nga ko moytandiku bu baax a baax a baax loolu nag li ci mën a yóbbee nit ki bari na bu baax a baax a baax ndax mën nañ cee tudd lu mel ni euh, euh, li nga xam ne moo siiw lool jamono jii te euh, nit ñu bari di ko def te teguñu ko ci lenn ci àqi charia muy ray gi nga xam ne moom lañ nemmiku nit ñi di ko rayante te dara waralu ko lu dul alali àdduna rek te ray googu nga xam ne moom la gis nit ñi di ko def loxo la ñuy jëfandikoo ngir man koo def ab loxo rek la kon loolee bàkkaar la bu mag boo xam ne nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax a baax ndax yàlla tëkkoo na ci ku ko tey def ko waaye yonente bi andil nañu ci ay xadis leeral nu ni nga xam ne noonu lañ ko war a moytandikoo bu baax a baax a baax nga xam ne ci alquranul karim suñu borom bi subhanahu mi ngi wax ne wa ma kaana li muminin an yaqtula muminan illa xataan wa man xatala muminan xataan fa taxriru raqabatin muminatin wa diyatun musallama ila ahlihi warut ci benn jullit muy rey beneen jullit euh, maanaam benn julit wërta rey moromum jullitam ci ludut maanaam juumte tey ko di rey sa moromum jullit loolu dafa araam kon njuumte rek moo war a tax jullit bi rey moroomam jullitam te suñu borom subhanahu wa sax ne na su fekkee ne njuumte dem na ba dab ab julit mu rey moroomam julitam ne na sax bu boobaa day am diya joo xam ne moom lay joxe e, ngir loole suñu borom subhanahu wa taala man ko koo jéggal kon loolu day tegtale am solo goo xam ne bakkanu doomu aadama am na ko solo te it sàmm goo xam ne war nañ koo e, sàmm Euh, ndax li nga xam ne mooy bakkan dafa bokku ci ad-daruriyat al-xamsa euh, bakkan daf cee bokk euh, ñëpp war koo sàmm war ko aar te la nga xam ne nag moom la ñuy jëfandikoo cërub doomu aadama bi muy jëfandikoo ba mën a jëfe loolee loole ay loxo la kon loolu war nañ ko cee moytandiku bu baax a baax a baax kon mu mel ni saa boo nit ki rayee li nga xam ne moo di mbokkum jullitam wala rey ku mu man di doon koo xam ne reyu ko ci àq euh, l'islam reyu ko ci charia bu boobaa day mel ni loolee day dugg ci lii su fekkee ne rey ga du rey tey maanaam rey ga daf koo rey rek waaye teyu ko su boobaa mën naa dugg foofu waaye nag su fekkee ne sax daf koo tey nag moom suñu borom subhanahu wa taala ne na kooka moom sawaras jahannama rek moom mooy li nga xam ne moo di ak fayam te foofa lay sax dàkk moo tax mu ne wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannama xaalidan fiha wa ghadiba allahu alayhi wa laanahu wa aada azaban azima képp koo xam ne nag da ngaa rey ab jullit te tey ko euh, rey aji gëm yàlla te tey ko suñu borom subhanahu wa taala nee na kooku moom ak fayam sawara rek la kooku sax biir sawara rek moo di ak fayam te suñu borom subhanahu wa taala mi koy rëbb guddi mi koy rëbb bëccëg te mi ngi koy préparé mbugal moo xam ne mbugal mu taratar la waaye mbugal mu màgga màgga màgg la kon lépp loo xam ne mooy tax a tàbbi nit ki ci euh, bàkkaar yooyu te cër bi nga xam ne moo mën a jëfal moo mën a tax doomu aadama mën a egg ci bàkkaar yooyu ab loxo la moo tax sëriñ bi ne lépp loo xam ne moo leen di yóbbee ci bàkkaar ngeen war koo jaare ci seeni loxo na ngeen ko moytandiku bu leen ci jottaliku len loo xam ne daf leen di euh, andil bàkkaar yonente bi saa sallam di wax ci xadis ne kullul muslimi alal muslimi xaraamun dammuhu wa maaluhu wa irduhu jullit bu ne araam na ci digganteem ak euh, moroomum julitam deretam wala alalam wala ab deram te deret wala alal loolu ñaari mbir la yoo xam ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko leerale léegi ci aaya yooyu euh, tuur deret euh, ab loxo moom moo koy def ndax nit ki saa boo jëlee euh, euh, ngànnaay jam ko ko wala nga dóor ko ko bu boobaa foofa mën na faa jaare tuur deret ju bari bëri mën na faa jaare faatu saa boo dawee këf euh, alali nit ci loo xam ne du tey bakkanam bu boobaa itam loolu lépp ay bakkar la yoo xam ne yaa ngi koy def te ci sab loxo ci nga ko jaare di ko di ko def kon moo tax ab loxo nit ki mën na cee jëf ay bakkaar yu bëree bëree bëri yoo xam ne mën na ko yóbbee ëllëg euh, yowmal xiyaam euh, pertange gu màgg màgg màgg te it suñu borom subhanahu wa taala leeral nañu ko yonente bi di waxaat ci xadis ba tey ne na ngeen juróom-ñaari bàkkaar yu mag yi nga xam ne day alage te ba muy tudd juróom-ñaari bàkkaar yooyee ba mu tuddee bokkaale suñu borom subhanahu wa taala tudd li nga xam ne mooy njabar la mu ca teg mooy euh, xatlu nafs muy rey bakkan boo xam ne tegewut ci at sharia kon loole mooy euh, ñetteel bi ci hadis boobee nga xam ne kon ñaari sësaloo foofu yëpp mooy jabar ak li nga xam ne mooy ray bakkan yooyu yëpp ay loxo mooy li nga xam ne moo koy jëf ndax nit ki saa bu tegee ci kanamam ay pitaaw ay loxoom lay jël di ko yëngale pitaaw ya te loole lépp ay bàkkaar rek la koy juróol moo tax nit ki war koo bàyyi xel bu baax a baax waaye war koo moytandiku bu baax a baax yitam te ñu xam ne itam euh, suñu borom subhanahu wa taala dafa màggal bakkanu doomu aadama ba bëggut dara loo xam ne moo ko moo koy gàllankoor euh, ba tax yonent bi sallallahu alayhi di wax ci xadis ne adduna ci boppam raaf jeex tàkk moom moo gën a woyof ci suñu borom subhanahu wa taala ñu rey ab jullit ci loo xam ne du ak sharia te rey jooju ñu wax itam li koy def mooy euh, ay loxo rek moom mooy li nga xam ne moo koy def kon loolu li muy tegtale mooy day tegtale ne kon ay loxo li ñu ci mën a dégge mooy ay loxo nit ki mën na cee jaare def ay bakkaar yu mag a mag a mag yoo xam ne euh, bu ko tuugut mm, suñ borom bi subhanahu wa taala mën na faa jaar alak ko kon looloo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di ñu moytandikuloo euh, ay loxo di ca jottaliku lenn loo xam ne mën nañoo yóbbee bakkaar bokk na ci li ñu ay loxo mën a yóbbee comme bakkaar ba tey lu ki mel ni sàcc lu ci mel ni sàcc euh, te loolu suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy wax ci alquran assaariqu wa saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaalan min allahi wallahu azizun hakim euh, sàcc moo xam sàcc bu góor la moo xam bu jigéen la saa bu sàccee loo xam ne dafa mat nisaab suñu borom subhanahu wa taala nee na na ngeen dagg ay loxoom ngir faye ko na ngeen dagg ab loxoom ngir faye ko jëf joojee nga xam ne moom la def te sàcc itam bokk na ci ñaawteef ak euh, bàkkaar yi nga xam ne ab loxo moom mooy li nga xam ne euh, moo koy def ab loxo moom mooy li nga xam ne euh, moo koy moo koy def kon loolu itam dañ ci tegtaloo ne yooyu yëpp ay bàkkaar la yoo xam ne ay loxo moo koy def te ñu war koo moytandiku bu baax a baax ngir fa mu ñu mën a yóbbee du lu baax sëriñ bi tekke ba tey ne falaata xuppa bul bind aw tamassa wala ngay laal maa la nga xam ne yakunu dana nekk muharraman di aji araam fi shar'i ci sharia na yàlla nañu gindi almakin yàlla mi aji màgg daraja sëriñ bi ne na nga fexey ba sa loxo yi de bul ci bind wala nga ci laal lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal ci sharia loolee na fexey ba bul ci jëf dara sab daal na fexey ba moom ko bul ci bind lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal wala nga ci laal lenn loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo araamal ndax bu ñu xoolee euh, moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne ci nahju wayam dakad bit laa tukassir abada lahwan biha fa innahu aybun bada wala tunaawil abadan ma lam taxus faidatan biha bi taqribin tufaz sëriñ bi radiyallahu anhu nee na say loxo na nga ko takk bul ci bari am fo euh, bul ci bari di ci jëf ay ayib bul ci jotandiku dara loo xam ne mënoo cee am njariñ lenn loo xam ne amul njariñ bul ko ci jottaliku waaye na nga fexe ba loo ci jotandiku wala nga ko ci jël rek na doon loo xam ne lu ama ama am njariñ la kon euh, lu mel ni euh, tey ji jël ab téereb alquran di ko tijji di ci jàng jël say loxo di ko wëlbatee téere bi wala nga jël ay xasida euh, di ci di ci wëlbati ab téere di ci jàng wala nga jël sa kurus di ci ñaan suñu borom subhanahu wa taala loolu lépp lu ama am solo la loo xam ne jëf la yoo xam ne loxo mën na koo def waaye nag saa bu jëfee safaan ba nag bu boobaa na xam ne noonu la mënoon a amee euh, tuyaaba ci jëf ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala digle bu jëfee safaan ba itam noonu la koy dikke kon looloo tax sëriñ bi ne bul bul rëdd ci say loxo. lenn loo xam ne mën na laa yóbbe ay bakkaar waaye bu laal ci say loxo itam lenn loo xam ne mën na laa yóbbee ay bàkkaar kon lu mel ni bind ci say loxo loo xam ne mën na laa yóbbee bàkkaar mën nañ cee jël euh, misaal lu mel ni ñi nga xam ne ñooy dem ci sëriñ yi nga xam ne dañuy liggéey nit ñi euh, di liggéey nit bind euh, ngir liggéey nit lu ko dofloo wala bind ngir jaxase ñaari doomu aadama ñu suñu borom subhanahu wa taala boole wala bind ngir yàqal nit ci barabu liggéeyukaay bu mu doon liggéeyee wala bind ngir ñaan nit ki suñu borom subhanahu wa ray ko te tegewul ci jenn ak sariya yooyu yëpp loxo euh, mën na koo def kon loxo la nga xam ne moom lañ ci war a def dëgg-dëgg du loola waaye ñaawteef yooyu yëpp war nañ koo moytandiku di ko jëf ci ay loxo mi ki mel ni tamit lu mel ni di euh, jël am ñollu di ko naan jottaliku ga koy jottalikoo ci sa loxo nga koy defee yooyu yëpp ay bàkkaar yoo xam ne loxo rek moo koy def tey it euh, jullit bi war na koo moytandiku doomu aadama bi itam war na koo moytandiku bu baax a baax a baax moo tax sëriñ bi ne kon bul rëdd lenn loo xam ne lu araam la bul laal lenn loo xam ne sariya a koo araamal ci say loxo waaye na nga fexe ba takk say loxo. ba lépp loo xam ne moom la suñ borom aaye duñ ko ca gis waaye lépp loo xam ne moom la suñ borom aaye loxo yooyee duñ ko ca fekk ndax loole lam lay jural mooy ay bakkaar yu baree baree bare rek te nit ki dafa war a moytandiku li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala araamal ci moom mu ne wa bihima ci ñoom ñaari loxo yooyee istain na nga dimbalikoo ala taati ci ci topp suñu borom subhanahu wa fi jumlatil awxaati ci mbooleem waxtu yi wa saaati ak euh, jamono yépp kon ne na sëriñ bi ne na li nga war a def ci sa ñaari loxo yooyu day mooy nga dimbandikoo ci di ci topp suñu borom bi subhaanahu wa taala ci sa mbooleem waxtu yépp lépp loo xam ne moom nga ci mën a def ci lu baax nga fexey def ko ca euh, lu ni euh, su fekkee ne man ngaa bind alquran nga ci bind al alquran wala su fekkee ne mën ngaa bind ay xasida nga bind ci ay xasida wala su fekkee ne mën ngaa def ay azkar nga jël sa kurus di ci tudd suñu borom bi subhanahu wa taala yooyu yëpp ay njariñ la yoo xam ne ab loxo mën na koo def ame ci ay tuyaaba yu baree baree baree bëri moo tax bi ne wa naddabu tahsina xattil mushafi wa hakaza tabiinuhu nadbun yafi ne nay sopp nan say loxo nga koy jël di ci bind ay mushaf muy alquranul karim waaye di ko ci leeral di ko ci euh, bu amee ay njuumte nga ko ci corriger yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne loxo mën na koo def mën caa jële njariñ loxo itam mën naa jël ay xasida di ko bind di ko taaral loolu lépp euh, loxo mën na koo def di ca jële ay njariñ mën ngaa jël sab loxo euh, di ca bind di ca tudd suñu borom subhanahu wa la jumtukaay ba ngay yore di ko la ngay tudd suñu borom subhanahu wa la loolu lépp ay yiw rek la lay jural sab loxo yitam nit mën naa ñëw yore tawat nga xam ne lii day soog ko bindalee mu di ak ñaan nga jox ko ko mën na caa jaare tawat sa saafaraw ci euh, coobare suñu borom subhanahu wa taala nga def lu mel noona loolu lépp ay tuyaaba lay jural la lay jural te fan nga ko jaare ci sa ci sab loxo nga ko jaare kon ni nga ci mën a jaare di mooy suñu borom bi subhanahu wa taala noonu nga ci mën a jaare itam di ci topp suñu borom subhanahu wa taala di ci am ay tuyaaba di ci am ay yiw yu bëree bëree bëree bëri kon loolu moo tax itam euh, muy cër bu am solo ci doomu aadama boo xam ne mën na koo jural euh, ay tuyaaba yu bëree bëree bëri comme ni nga xam ne noonu la ko mën a jurale ay euh, ay ay ñaawteef man koo jural ay ay bàkkaar kon looloo tax sëriñ bi ne kon na nga dimbali ko ci sa ñaari loxo yooyu ci topp suñu borom subhanahu wa taala ci mbooleem say waxtu waaye mboolem jamono joo xam ne ci nga toll na nga fexe di ci dimbali ko di ci topp suñu borom bi subhanahu wa la bokk na ci li nga ci mën a dimbandikoo itam ba tey ñu xam ne ak jaamu yàlla sëriñ euh, sëriñ bi radiyallahu anhu ne na nit ki xam-xam wala ak jaamu yàllaam du jariñ du ko jariñ mukk li feek mi ngi lekk lu araam li feek mi ngi lekk lu araam te fàggu lew liggéey moo koy maye te liggéey bokk na ci cër ya ëpp solo ya koy def ay ay loxo bokku na ca euh, kon mën nañ cee dimbandiku itam Eh, ngir jaamu suñu borom subhanahu wa taala ci naka ci dem fàggu ji lu leew ci suñuy loxo ñëw lekk ko mu doon lu lew ñu mën a jaamu suñu borom subhanahu wa taala jaamu ko di lu di suñu borom subhanahu wa taala nungu moo bi di wax foofu ne laa wala al ibada bil akli ngeen xam ne xam-xam wala eh, jaamu suñu borom subhanahu wa taala di du jariñ doomu aadama mukk li fekk mi ngi lekkool araam te liggéey lu lew lekk lu lew mi ngi bàyyi ko ci liggéey lu lew te liggéey lu lew cër ya ci ëpp solo ci la koy def ay loxo ca la bokk kon loolu itam ñu war koo bàyyi xel xam ne cër bu ama am solo la boo xam ne doomu aadama bi mën na cee sukkandiku euh, defar lu baree baree bari ci ak dundam waaye jagal lu baree bari ci ak dundam ba tax na kon saa bu ko sàgganee ba ci jëf ay ñaawtee fa la mu ciy jëf ak mooy loolu itam mën na koo yóbbee euh, alkande waaye mën na koo yóbbee ay bàkkaar yoo xam ne bu ëllëgee pertangi rek la koy jural kon loolu ñu muslu ci bu baax a baax a baax a baax kon sëriñ bi bunt boobu loolu la ko tënkee nga xam ne lépp ay ay euh, euh, li nga xam ne moo aju ci ñaari loxo ak ni ñu ko war a moytandikoo ak li ñu ci war a jëf ci jëf ju baax loolu rek la fi sëriñ bi radiyallahu anhu moom la ñu fi leeral kon ñu ngi koy euh, ñaanal bu baax a baax suñu borom subhanahu wa taala gën a dolli taw fee xam te taas ñi ci barkeem di jaay Cheikhul Khadim ñu bu baax tey jégglu di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ala sahabati wa kullihim ridwanu rabbil aradi wa samawati على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات